beaucoup, euh, Monsieur ministre. Donc, à la suite de Monsieur le ministre de la Santé, euh, je vais entrer dans le détail de euh, la situation épidémiologique. Donc, comme annoncé, nous sommes aujourd'hui à 195 cas positifs. Sur ces 195, 55 sont guéris, donc dans nos différents centres de traitement. Donc, le service de mal infectieux de l'hôpital de Fan, l'hôpital euh, d'enfants de et au niveau de Touba. Et nous avons eu à déplorer un décès et un, un malade qui a été transféré en France. Euh, aussi en analysant les chiffres, nous avons au moins de cas importés dans euh, le, le, total des patients positifs et 56% de cas secondaires. Les cas par les, euh, les, les, personnes qui ont été euh, infectées et qui ont importé la maladie. Et nous avons aujourd'hui 4% de patients euh, dont les cas n'ont pas de lien épidémiologique, ce qu'on appelle les cas communautaires. Des questions sont posées sur à quand le pic épidémiologique au Sénégal. Et, euh, ce qu'on peut dire, c'est que ce serait hasardeux le pic au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures de contingences qui ont été euh, prises par le président de la République du Sénégal avec la fermeture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, euh, la suspension des enseignements, euh, l'interdiction de manifestations publiques, ces effets devront commencer à se voir en principe à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui,

très très important euh, à partir de la Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens euh, qui peut être très euh, difficile pour nous. Donc aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, en principe, on devrait avoir une meilleure visibilité sur un peu le, la courbe, ce qu'on appelle la courbe épidémiologique euh, au niveau du Sénégal. Et on insiste encore sur les, euh, toutes les mesures de prévention, tous les conseils, l'esprit de responsabilité des populations pour qu'on arrive à maîtriser cette épidémie parce que ces 4% peuvent être après très très déterminants. Et ces malades restent toujours répartis dans les six régions dont on avait, dont on avait parlé, la région de Durbel, la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, la région de Ziguinchor et la région de, de Fatick. Nous avons à ce jour sept sites où des patients sont actuellement en train d'être euh, pris en charge. Au niveau de Dakar, c'est au niveau de l'hôpital de Fann, de l'hôpital d'enfants Albert Royer, euh, de Dalal Jamm, du centre hospitalier de l'Ordre de Malte qui a commencé à recevoir des patients. Et au niveau des régions, nous avons encore des patients à Touba, à Ziguinchor et à Saint-Louis. En termes de lits, aujourd'hui, euh, le ministère de la Santé a pu mobiliser au moins 500 lits sont disponibles pour pouvoir prendre en charge Donc nous avons encore une marge de, de, de lits pour les patients. En lit de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital de Fan est déjà euh, fonctionnel au niveau du centre de chirurgie cardiaque. Nos collègues vont y revenir avec déjà 10 lits de réa en place. Et au niveau de chaque site de traitement, des unités de réanimation sont également en train d'être disposées. Et au niveau de nos sites de traitement, l'ensemble du personnel, et ça c'est très important, dispose de matériel de protection et d'équipement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le ministre de la Santé a donné des instructions fermes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal en a acheté. Nous avons également reçu des dons, principalement de la Chine, d'équipements de protection qui ont été acheminés dans les 14 régions. Et pour les équipements de protection aussi, l'ensemble des sites de prise en charge ont l'ensemble des équipements, tous les équipements nécessaires pour se protéger, mais également pour prendre correctement euh, les patients. Et aujourd'hui, même, nous avons encore des stocks disponibles, aussi bien au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire qu'au niveau de la PNA. E Et même des commandes sont en train d'être faites pour pouvoir renforcer euh, ce stock. et aussi rassurer les parce que certains ont posé la question beaucoup sur les tests. Est-ce que les personnes peuvent aller faire des tests Et ce, ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller dans les structures, dans les laboratoires, principalement au niveau de l'Institut Pasteur, pour aller faire des tests de laboratoire. Donc les tests sont uniquement réservés pour le moment aux personnes contacts qui deviennent suspects, c'est-à-dire des personnes contacts qui présentent des signes. C'est seulement ces personnes, pour le moment, pour lesquelles nous recommandons la, euh, le diagnostic au Donc pour ces labos, effectivement, nous avons beaucoup l'appui de l'Institut Pasteur. L'IRSF également est, en train, est, en train dans le, entré dans le système et couvre la région de Thiès. Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur a mis en place un laboratoire mobile au niveau de, le, de, de Touba. Et actuellement, nous sommes en train de travailler et très prochainement, je pense que dans la semaine, un laboratoire mobile se mettra en place également au niveau de, des Iguinchor. Pour information aussi, on, a, on épilogue sur l'âge de nos patients. Euh, ce qu'on a vu, c'est que les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus risque est élevé. l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. de pouvoir je veux dire, protéger ces, ces groupes vulnérables, entre guillemets, et donc pouvoir respecter, en tout cas nous qui sommes dans la communauté, pouvoir respecter l'ensemble des mesures édictées. Par rapport aux contacts, donc à ce jour, c'est un parce que les contacts euh, des cinq déjà que nous avons eus euh, aujourd'hui sont en train d'être euh, recherchés et d'être compilés. Donc nous avons 2888 contacts et sur ces 2800, 1037 sont sortis du suivi. Donc aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être sont déjà Euh, confinés dans des hôtels. Et c'est extrêmement important cette euh, proportion de contacts à suivre, parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, de faire de telle sorte que ces personnes même si elles tombent malades, ils sont dans un environnement déjà confiné, protégé, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Et juste terminer en disant qu'à la suite du ministre de la Santé, c'est vraiment un travail multisectoriel qui est en train d'être fait avec le secteur de la santé et, et il faut vraiment souligner le travail remarquable qui est fait sur le terrain par les postes de santé, les districts sanitaires, les régions médicales, parce que c'est eux qui font les détections, c'est eux suivi des contacts et les investigations. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, le travail exemplaire qui est fait par ces services, mais également au niveau de la coordination et même au terrain des autres services, les autres ministères, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, tous les autres ministères qui travaillent de concert avec le ministère de la Santé. ma tënk ko ci wolof di wax ni comme ni ko suñu euh, Euh, malade yoo xam ne testé nañ leen positif ci Sénégal ci ci diir ci groupe boobu am nañ ci juróom fukk ak juróom yoo xam ne wér nañu am nañ ci kenn koo xam ne yàlla jël na bakkanam yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko ajana am nañ kenn koo xam ne moom dëkkam muy réewu France daf ko jël yóbbu ko tugal donc am nañu téeméer ak fanweer ak ñett ñoo xam ne ñi ngi leen di fàcc si biir si biir dëkk bi et suñu xoolee ci loolu ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew bu ñu jëlee téeméer Euh, euh, ñeent fukk yi ñoom ñoo jóge bitim réew indi feebar bi si téeméeri aussi bu ñu jëlee juróom fukk ak juróom benn dinañ ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñu jóge bitim réew indi feebar bi ñoo leen wàll feebar bi am nañ bu ñu jëlee téeméer ñeenti ñi ñoo xam ne ci biir dëkk bi lañu ñu amee feebar bi te ba léegi jàppaguñu fan la ñu amee fan la ñu la leen feebar bi taqaleen donc bu ñu xoolee gis nañ ni ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew ñëw ci dëkk bi indi feebar bi ak ñi ñoom ñi ñu wàll bu ñu leen dajalee dina def euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-benn donc lu takku la ci wàll boobu. ba tax na am nañu yaakaar ak euh, mesures yi nga xam ne monsieur le président de la République jël na ko ñu tëj frontières yi. Euh, arrêté école yi euh, arrêté manifestation yi que loolu dina dinañu mën a gis effet yi fiyeek ak euh, semaine prochaine incha allah parce que dina war a war nañ teg fukki fan ak ñeent après bu ñu tëjee frontière pour ñu mën a gis parce que si diggante bi ñi nga xam ne tukki nañ ñi ngi si dëkk bi mun nañu feebar ci ci diggante bi donc foofu la ñu mën a xam fan nañu feebar bi di jëmee maintenant bu ñu ko jàllee li am solo mooy ñeent ñi may wax ñi nga xam ne ci ci téeméer bu ne ñoo xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ak ñi nga xam ne ay contact lañu donc foofu la ñu suñu xeex di di di gën a euh, jublu ba nga xam ne ñooñ duñu walaak ñeneen parce que loolu buñ ci farluwul ba tee loolu rek mun na am feebar mu law mais am nañ yaakaar vraiment ak décision yi ñu jël ministre de la santé taktal yi mu joxe am nañ yaakaar ci loolu war nañ ko mën a téye ci wàllu gox yi am feebar yi ba léegi soppeegul am nañ juróom benn gox yoo xam ne am nañ ko muy Ndakaaru muy Thiès muy Ndar muy Njaareem muy Ziguinchor ak euh, muy Fatick te ci aussi fi nga xam ne la faje malade yi am nañ ci juróom-ñaar ci hôpital Fann am nañ ci benn euh, hôpital d'enfant Albert Roy euh, de Diamniadio bi nga xam ne extension bi am nañ fa benn hôpital Dalal Jamm am nañ fa benn centre hospitalier de Malte am nañ fa benn Touba Ziguinchor ak Saint-Louis fu ne am nañ fa benn donc foofu fi may wax nii fu nekk am na malade yu fa tëdd yoo xam ne ñu ngi leen di faj ci wàllu sauvetage nag bi nekkoon réanimation amatuñu fa benn malade bu fa nekk. ci wàllu lal yi parce que ñëpp dinañ xalaat ni effectivement nit kaa yaa ngi bëgg yokku déjà ci euh, ci ndigalu ministre de la santé am nañu euh, juróomi téeméeri lal yoo xam ne. disponible na pour ñu mën a xool malade donc euh, anticiper nañ ci loolu te lalu sauvetage as ñu ngi koy yokk ci gox yi nga xam ne am na centre de de traitement ci wàllu jumtukaay yi nga xam ne moom la personnel de santé bi di jëfandikoo pour di euh, toppatoo maladie loolu aussi euh, egg na parce que région bu nekk jox nañ ko matériel bi nga xam am na nguur bi jënd na ay matériel am nañ aussi ay ndimbal yu ñuy jot ci ay partenaires donc euh, ministre de la santé joxe na ndigal ba nga xam ne lépp lu wàllu ci équipement yi egg na ci ñoom suñu centre de traitement yi aussi lépp lu war ci jumtukaay am nañ ko dem nañ ba am nañu réserve boo xam ne denc nañ ko su service centre des opérations mais également ci pharmacie nationale d'approvisionnement d'approvisionnement te nguur baa ngi continuer aussi pour jëndaat yeneen équipement de protection pour mun ko garder ba nga xam ne du ñu am dara lu ñu bett. su ñu xoolee aussi ci wàllu euh, laboratoire bi donc parce que ñoom dinañ ci wax ñu ngi ciy jàppale bu baax ak beneen laboratoire bu ñu naan boo xam ne mu ngi ci Thiès donc ñu ngi xool lu ñuy vraiment yokkee aussi man man bi ba nga xam ne région yi gën a sori comme Ziguinchor dinañ fa mën a def euh, analyse yi bu gën a gaaw. léegi bu ñu xoolee ci maladie ci at yi ñu am euh, jàpp nañ ni entre ñi am ñaar fukki at ak juróom ak juróom fekku at boo jëlee téeméer bu ne mën nañu juróom benn euh, euh, juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ëpp nañu juróom benn fukki at nekk nañ ci fukk ak ñeent donc loolu dafa am solo pour ñu xool ko bu baax parce que ñi nga xam ne ñooy am feebar bu garaaw bi ba nga xam ne dañu jëbu sauvetage ci at yooyu ñu nekk surtout ñi nga xam ne dinañu passé juróom benn fukki donc ba tax war nañu toujours bàyyi xel ci li ñi nga xam ne ministère de la santé joxe na ko ci ndigal ci wàllu cat bi ci wàllu vraiment ñu xaw a sorante ba ñu góorgóorlu ci lool ba fii ak ay fan ba feebar bi ñu mën ko téye. Euh, ci wàllu aussi euh, feebar bi jigéen ñi lañ gis ni ñëw ci xaw a ëpp tuuti parce que bu ñu jëlee euh, bu ñu jëlee téeméer jigéen ñi mën nañu juróom benn juróom fukk ak ñeent. donc góor yi nekk euh, ñeent fukk ak juróom-benn. donc parce que tolloo nañ mais gis nañu jigéen ñi ñoom ñoo gën a am feebar bi parce que gis nañ ñu bëri aussi nag bi amee feebar seen soxna yi euh, wàll nañ leen seen doom yi aussi te jigéen ñi ñoo ci ëpp. ci wàllu contact yi mooy ñi nga xam ne ñoo tax ci ñi am feebar bi nga xam ne dañ leen war a seet ñoom ñëpp ñi ngi si ñaari ñaari junni fi mu nekk nii ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett euh, juróom-ñett yoo xam ne ñu ngi leen di topp ci loolu am na junni ak euh, fanweer ak euh, juróom-ñaar yoo xam ne génn nañ ci suivi bi donc fi mu nekk nii am nañu junni ak juróom-ñett fukk. ak euh, juróom fukk ak benn ñoo xam ne ñu ngi leen di topp te ñoo ñu am na ñoo xam ne déjà euh, président joxoon na ndigal pour ñu yóbbu leen ci hôtel pour mun leen seet parce que contact yi ñuy wax yooyu dafa am solo pour ñu mun leen topp parce que bu ñu demee ba tënk contact yi même bu ci amee euh, ma détail ku ci feebar dina nekk foo xam ne dinañ ko seet dinañ ko mën a téye ba du mën a wàllu kenn parce que feebar bi noonu lañ ko mën a téye il faut que ñëpp nga xam ne am nañu feebar bi wala ñi nga xam ne nekk nañ contact am feebar bi ñu tënk leen ba nga xam ne bu dara xewee rek dinañu mun jël en charge rapidement bañ a mun a wàll keneen di di rek di xool wax ni aussi liggéey bi dañ ko bokk ak ñu bëri ministre de la santé su leen ñeneen sànq euh, waa ñi nekk ci wér-gu-yaram bi te loolu dañ koy rafetlu ñi nekk ci poste de santé yi ñi nekk ci district de santé yi ñi nekk ci région médicale yi ñu ngi def liggéey bu am solo parce que ñoom ñooy dem xool maladie ñoo leen di seet ñoo leen di topp ñooy def prélèvement yi des fois ñoom ñooy transporter sax maladie yi ci hôpital donc liggéey boobu am na solo liggéey bi aussi dañ ko bokk ak aussi service muy les forces de défense jàppale bu baax ak yeneen ministères yi yoo xam ne ministère de l'élevage communication peut-être su ma limee jum ak yeneen partenaire aussi ñu ngi ñuy jàppale bu baax ci ci wàllu liggéey bi ba dinañ vraiment ñu ngi ñaan bu si ñëpp jàppee incha allah dinañu mën a am ay résultats yu baax yoo xam ne peut-être feebar bi dinañ ko mën a téye wasalaam maa ngi terminé di jox kàddu gi docteur euh, Amadou Alpha Sall muy directeur Institut Pasteur donc je donne la parole euh, au directeur de l'Institut Pasteur le docteur Amadou Alpha Sall merci